mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu ku nekk ci tuuram ak santam di leen sant di leen gërëm di ñaawlu wax yi nga xam ni mi ngi fiy jóg ak jëf yi ñu commencé gis campagne électorale dafa doon waxtu woo xamante ni ku nekk da ngay andi sa programme nga wax ko wax yéene bi nga am ci askan wi yàgg ñi nga àndal bàyyi askan wi tànn la ko neex tànn ko ci jàmm tànn ko ci salaam mais liñ fi gis liñ fiy dégg fan yi commencé ko fi gis mooy ginnaaw wax ju ñaaw commencé nañoo jëf ci loola moo am ñu fi commencé di gaañu mu am ay woote yu ñu fi dégg ak ay wax ak tontonte yoo xam ne fi mu jën doonul lenn lu baax réew mi nag am na ci lu mu jógee gis nañ ko fii ci at yi weesu réew mi am coono ndax ay xuloo ak i xeex yoo xamante ni ay bakkan rot na ci te it koom réew mi sooxee na ci ba tey ji ñu ngi dund loola kon may ñaan ñii nga xam ni ay acteurs lañu ñoom ñëpp ku ci nekk li ci sa wareef nga def ko ku ñu jiital mooy président de la république ndax moom moo war a garantir sécurité askan wi moom moo war a fexe ba réew mi dox kon ñu ngi koy ñaar mu jël ay matuwaayam pour que lépp tegu ci yoon ak ci jàmm ak salaam nam ko waxe woon fan yi weesu waaye lay dimbali liggéeyam di ko yombal mooy ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci langue politique bi nag ku nekk yem fi nga war a yem ku nekk def li nga war a def ku nekk wax war wax ci jàmm ak Sénégal ndax dañoo bokk baay dañoo waral ut jàmm ci campagne bi après élection bi ba nga xam ni li Sénégalais di tànn doon leer nañ buñ ko tànnee ba pare ñu jàppante réew mi dox ndax bu dul loolu it askan wi rek mooy gën a loru te loolu baaxul ci kenn baaxul ci pouvoir baaxul ci opposition ndax loo xam ne réew mi yëpp lay yàqal baaxul ci kenn kon may sant ñëpp di gërëm ñëpp